السلام عليكم ورحمة الله مكين كان يقول أن يدلن زعر أن بالحق أن برم سبحانه وتعالى مبالين جغل حديث تايبي رواي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما صحيح الترمذي ينتبه صلى الله عليه وسلم دفع حديث بنه jigéen du wéet ak góor dudul ne cheytaane moo ni ñetteel xadis bi mu ngi ci dafa am lu ñu yonent bi bëgg jàngal rek sallallahu alayhi wa mooy góor bu wéetee ak jigéen ñoom ñaar cundum jigéen joo xam ni du soxnaam te du jigéen joo xam ni du rakkam wala du magam wala du yaayam nekkul koo xamante ni daal mënu koo takk kii mën na koo takk soxna wéetee ak moom rek seytaane moom moo leen ñetteel te seytaane bu ñetteelee jotaay booba dafay loola lu koy yitteel la ndax dooleem foofu la gën a ame foofu la gën a bari maanaam seytaane bu ko nit jaaxalee ba jaaxal ko fam koy jaar mooy ci góor bu ko jaaxalee fam koy jaar mooy ci jigéen pour mën ko daanel bu ko defee mën a yàq digganteem ak boromam moo tax nit yàlla yu bari Euh, échelle boobu dañ ko jéggi étape boobu dañ ko jéggi jéggi ko nag lu jafe la bu ko defee ñu bàyyi ci xel bu baax a baax boo tax lislaam euh, limite yim ñu tegal en tant en tant que diggante góor ak jigéen yàlla moo ñu bind moo ñu gën a xam suñu bopp bu ne bu ñu joxe loxo diggante góor ak jigéen sax dafa xaram li tax mu xaraamal ko moo ko xam moom moo xam loola boo boo boo jàngatee tuuti rek xam ko yëg ci dara refe ko defee yooyu nañ koy sàmm bu baax a baax a baax te di ko contrôler ndax ñun ay jaam lañ yoo xam ne moomuñu suñ bopp te seytaane mu ngi daw suñ yaram comme ni deret di daw suñ yaram bu ñu góorgóorloo nag ci yooyu ñu yàlla tere ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi di ko moytu yàlla mën nañu muccal ci pexeem yu mag yooyu incha allah yàlla na yàlla boole dimbali qul qawli hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh